mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bu ngeen gisee jotaay bi xam ne eh, ku tedd ki di Serigne Cheikh Jëmm Fall moo woon mboolem ay rakkam mboolem buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp mboolem ñu mbokkal maam Cheikh Ibrahima ngir liggéey bu tedd bi nga xamante ni bii Serigne eh, Mountakha Mbacké moom Cheikh Mahamadou Bachir eh, teg na ko ci loxoom mu fas yéene ko bokk ak ay rakkam kenn ku ci nekk itam wuy si Serigne Cheikh Jëmm ci liggéey bu tedd bi ñu fas yéene koo ànd tey jën sëriñ bi woon leen fii ci këram ngir fas yéene waxtaan ak ñoom waaye gën leen a dolli ay cant ak i ngërëm ci wuy si bi nga xamante ne bii wuy si nañ ko ci liggéey bu tedd bi eh, ci biir loolu rek xam ngeen ne itam liggéey bi mi ngi dox mboolem ferrailleurs yi ak mboolem maçon yi ak mboolem mëlër yi ñëpp ñu ngi ànd ak Serigne Cheikh ci liggéey bu tedd bi gannaaw bu Cheikh Mahamadou Bachir eh, tegee xeer bi nga xamante ni bii mooy xeer yi ngir ñu tàmbali liggéey bi muy stade ba woon nga xam ni fa lañ doon fubale ak di fa bëre lépp loo xamante ne ay jaaxaan foofu lañ ko doon defee tey Cheikh Mouhamadou Mountakha laaj ko ci ndigalal Serigne Touba Cheikhul Khadim ñu jox ko ko ngir mu fas yéene ko soppi daara ak jàkk teg ko ci loxol maam Cheikh Ibrahima Fall muy Serigne Cheikh jëm xam naa dinañ leen woon rek incha allah ni nga xam ne noonu la liggéey bi war a demee su ko defee ñi nga xamante ne bi am nañ yéene itam barke bi ci liggéey bi nga xam ne ay soppe lañ ñi day wëlëre te yéene lépp maam Cheikh Ibrahima Fall bi jëf ñu dugal ñëpp wuy si nañ Serigne Cheikh Jëmbu Fall bi nga xam ne tey moo fi maam Cheikh a Fall xam naa ne dañuy ànd ak sunu caméraman su ko defee mu won ñu li nga xamante ne bii moo juuta moo jot a euh, feeñ ci liggéey ba waaye tamit won ñu itam ñi nga xam ni wuy si nañ Serigne Cheikh Jëmbu te mooy mboolem buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp. Fall boo xam ne bii daal nag wax dëgg yàlla foofu waaye nekk tuddoo Cheikh Fall war ngaa jóg ñëw wala ngaa luy tax ñu xam ne yow mii am na lu yëngutu loo xam ne doon nga ca dara waaye daal ñuy wooye ñuy woote liggéey boo xam ne liggéey bu Cheikh Fall nga ne fi barab tuddoo Cheikh Fall bañ la ci loolu fii daal xàmmee wuñ laa ñi ci doonul dara moom dara jaru ko foofu waaye nekk loolu bala Fall war ngaa xam nag ni yaa ngi ci loo wërta nekk. ñu ci nekk ñu nekk fii te doon ci dara ñëpp ngi ci ñi nga xam ne dañoo am seerfal xemmem te fa bëgg ak yaakaar da nga leen boole tam ñu ngi kon ku yàlla dogal nag nga di ko tuddoo lépp ku doon kër gi war ngaa jóg xam ni euh, liggéey la boo xam ne bii ki ko war a santaane santaane ne ko te kooku mooy mooy suñu digal na ko ki mu ko a digal ñi ci war a ànd ak ñoom te tuddoo yoon ñëpp ñu ngi ci jàpp kon ñu ngi siyaara ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp te soññee te sonn suñu bopp di ñaan yàlla yëf yi moom li koy tax a sotti bañ xam ni li ñu digaloon def nañ ko yàlla boole na ca loola yàlla boole na ci ñi nga xam ne ñoom ah, bu dee xel la wala ay pexe wala doole wala alal lépp daal nu bokk ci ngir am na lu ñu solal Cheikh Fall loo xam ne lii moo na ko mënal te kon leen ko leen ko mënal te te loolu dinu ko may nañ ko ko jox jërëjëf Fall. ñëw liggéey bi nag nga xam ne liggéey bi nga xam ne. Hmm. suñu Muntaxa moo ko jox hmm. ci loxo njabootu maam Serigne Fall hmm. ah, mu jaar fii nag di nemmi ko njabootam. ci taalibe bi waaw mu ñëw nag ci kër sëñ Abdoulaye Fall Ndar waaw ci keesub sëñ Modou Abdoulaye Fall waaw ñu ñëw fekk ngi koy ñu ngi koy sant bu baax a baax ndax ñun ñoo a jóg fekk fekk ko waaye nag bu uh, borom tool bu nekk sañ naa nemmi ko toolam sañ naa nemmi ko njabootam kon nag ñu am ci mbégte bu baax a baax a baax nag li sëñ bi def loolu mooy li nga xam ne loolu la kilifa gu nekk noonu nga war a doxe hmm. ndax sëriñ bi dafa wone eh, ak woyof wane it ku boo xamante ni bii day day topp la mu war a topp hmm. di ko di ko sàmm waaw hmm. ah, ngi koy rafetlu nag moom bu baax a baax di ko siyaare ak soxnaam si mu àndal muy soxna Njóobu Mbàkke di bokk si njabootu Sëriñ Touba ak taalibe yu mu àndal yëpp liggéey bi nga xam ne sëriñ bi dafay ñëw fekk mën nañ cee ay kàddu bu nëpp si ñu mottalee wax léegi si Aliou ko defee mën nañ koo tënk ci moom sëñ sëñ sëñ Fallou mii ci taxawaayam liggéey bii day liggéey ne ko waxee woon rek yenn ci yenn yenn day liggéey ne dafa dafa dend ak maanaam ab seexam wala mu dend ak ak séeréem ndax boo xoolee nii rek sa càmmoñ ñu bi féetee gànnaar du mat mètres wala mètres nga ci raay bi raay bi te raay boobu bu weesoo jumaa yi njaareem rek mooy projet bi nga xam ne mooy jiitu cooru may mu am la Cheikh Mor Moussa Karim yëkkati woon njaareem 1928 su ànd ak maam Cheikh Ibrahima Fall boobu Serigne Touba dellu ci borom mu doon liggéey bu yéeme boo xam ne liggéey bu bu historique la ne maanaam liggéey lépp loxo la. Hmm. amul nekk amul leen loo xam ne machine moo ko def waaw tolloo 45 kilomètres yoo xam ne état financé wu ko wu ko ONC financé wu ko Serigne Touba ak njabootam ñoo financé liggéey boobu. Hmm. nga xam tey jii soo ko évalué woon ay milliards la. projet national bu ginnaaw bi li ñu rëy rëy lépp ñu koy ñu raay bi ma mën na ko ñeenti yoon financement te booba la doole gën a ñàkk boobal man-man gën a ñàkk gën néew kon tey jii nag ñu ngi sëñ bi xeb liggéey boo xam ne ah, la ko liggéeyoon juróom-ñaar téeméeri la ci maam Seex Ibra Fall joxe woon yoroon financement ba lañ daan lañ daan xéwloo ñoom añ ak reer sama rayal leen nag mm-hmm. boole ci di fay ouvrier yi suñ mm-hmm. ma Moustapha mu fay ouvrier yi tey jii nag njabootu maam Cheikh Ibra nekk fii di liggéeyal sëñ Touba fii kër nga xam ne ab stade la woon nga xam ne la fi nekkoon ak lii fi nekk tey sore nan kon loolu eh, dañuy dañuy delloo ci démb dañuy delloo ci histoire. Hmm. ndax eh, bu ne ñu liggéeyoon raay bi ñu ne Cheikh Ibra ak njabootam ak sëñ ñu ne kër gi ñu koy liggéey ñu ne maam Cheikh Ibra Fall loolu bokk na ci rek ci tegtal yoo xam ne liggéey la boo xam ne bu bu yéeme la mhm. beneen bi mooy siiwal nañ lool ne Seexul Bamba Xaadimu Rasuul barab bii la gënee jamono xam nañ wax nañ ko wax nañ tudd nañ kër gi tudd nañu fii kër Sëñ Fallu Mbàkke ji nekk waaye lu si maanaam it fii la gënee jamono ay ay ay ay njabootam ñu ngi fi tëdd soxna Fatima wax nañu bokk Sëñ Fallu Mbàkke lépp مامرو كبير ني في تد في رك مو فيما سكر ودا في سن سن ديور سن بوزوي بي نيك مو سن مامو جارا غيرن اك اك بنن ليرام واخنا ني ني من طالب المدار في جيران جمعة سن بوزوي بي ودا في نفك جيختال واخنا ني في لوكو في لا شيخ مصطفى فكور liggéey sëñ Tuubaa bi na ko ñëpp dégg na ci ñëpp ñëw na ci ñëpp jëf kenn ku ci nekk def ci sa akulaay taala ak sa kem kattan te it dëndu Cheikh Moussa bi daa yomba lijjanti jëf jël kenn jëfalul kenn dara kenn ku ne loo jëf ak loo wax ak loo def fekk sa bàq mi te su keroog ngeen sëñ Tuubaa si xelal fa lañ koy yaakaar ak waa kon ñëw leen ci liggéey bi ñu ci bu baax jërë ngeen jëf. liggéey bii nga xam ne Serigne Mountakha mi euh, fi nekk nekkal fi Serigne Touba dafa fab liggéey bi jox ko Serigne Cheikh Jëmb Fall xalifa maam Cheikh Baye Fall ñu ngi ñaan sàmbaram boole leen yàggal lool dañ ànd ko wér li nga xam ni mooy ndigal li moo di Serigne bi dafa santaane ñu defaral ko kër fii ci mbakki Bawol kër goo xam ni njabootu maam Cheikh Fall la ci bay lool kon njabootu maam Cheikh Fall fas nañu yéene ndi ko sëriñ bi bëggee ñu defe ko ni yàlla nañ ko tàmbalee ci bisimilahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ bi nag mi ngi soññ mboolem fu taalibe nekk rawatina ku yaakaar am Cheikh Fall loolu de mooy li nga xam ne mooy ci la ñu nekk fii nga noog toog nag toog fi sa kanam mag muy sëriñ Abdou Rokhaya Fall moom sëriñ Mor Talla moo ak yow euh, mu fi nekk sëriñ Aliou yéen a bokk liggéey bi nekk ci gannaaw Serigne Cheikh jëmm mi nga xam ne mooy seen mag yéen a ngi soññi teel bi yëpp fu waay mën a nekk te yaakaar maam Cheikh Rafa rek ñu ngi la ciy rawat ñu ngi la ciy wax fu waay mën a nekk te yaakaar Serigne Touba ñu ngi la ciy wax ndax liggéey la boo xam ne liggéeyu Serigne Touba la te ñun teel bi yëpp ñoo ko bokk jërëjëf Fall. liggéey bi gis ngeen ko tegu xeer wa gis ngeen ko ah tàmbali na nit sëñ Fall rombee fii tuuti dina gis ne ñi ngi miir ay miir yi yëpp jóg nañ kon nag. murid yi nañu gaaw rek li moom ndax koy def moo def xaalis rek ciment baa ngi ne di jale ak fer bi kon loolu dong lañ soxla moom fu mu yeex rek ciment ak fer a manqué waaye bu ci loolu lépp dul manqué moom daanaka du du taxaw ñu ñaan nag sëñ bi loolu li ñuy xéwal ak wér ba li mu bëgg ñu def ko di sant ñëpp di gërëm ñëpp loolu lay defar la war nga toog waaye li si si baax li si baax rek moom mooy wax ji bon gannaaw kilifa la te wax li ma la wax rek loolu daal amul amul amul lu ñu dolli waaye xanaa gën a soññee gën a soññee rek nag mbooloo mi waaye ba nekk daal nga xam ne moom si si kilifa ñu ngi ci kilifa yaa ngi fii waaye ma nekk ku ne te bàyyi faal moom xam ne si kilifa bi lii toog duñu benn dafay liggéey mel na kuul mbaa ñu am ndigal dam leen sopp dam leen dañu waat lu dul bàyyi ko di di di asama moom noonu la rek kenn xeeb dara xam si maa indi xam fere indi xam ay dama indi ko ndax fii moom liggéey liggéey bu kenn dara lu lekk ak lu naan ak lu ñu ci liggéey bi moom fu waaye mën nekk di te fii moom léegi fii moom waaye joxul ci yow la ndax léegi si boo xëyee ma ngaa yónni dépense foo ma ne dañu dañu jot léegi war yaa ngi fi asma yaa ngi fi fii maa ngi jël xees mi ngi fi ah, <laughs> waaw gaaw gaaw yoo xam ma nekk bu ne bés bu ne waaw ah, fay ma nekk bu ne dégg dégg liggéey moom dégg ko baax a baax xanaa kii ku ñëwul sa kër boo bu ñu ne carte téléphone sa kër gi ngeen niwu fi foo mën a jaar da nga xam dépense yooyu nekk sa kër kon noonu la sëñ bi ci li nga ci li nga lépp ginnaaw moo soxla nag te ñu fii kon yéen itam góorgóorlu baax sañ waaye man bu nekk loo am na ko yónnee te ñëw ku mën sa loxo la ñëw rek dégg nga jigéen ñi Fall. jërëjëf jëm Fall. waaw ah. ñu yoo xam ne kaddu yu ngërëm la kaddu yu ñaan kaddu yu soññee liggéey bi sëñ bi waa jox Sëriñ jëm Fall jëwriñ sëñ bi mi ngi soñ ñëpp dina ci woo ñëpp te xam ne jëf la joo xam ne kat wax du ci maye dara jëf la ci maye te yéen na yéen ci ñëpp nag waaye soo lu ñu may kat ko naa ne fa nga ne ma nekk la nga bëgg waaye du ñu jaay la du ñu jaay nañ jënd ko moom dëgg nag mën naa yóbbu lool mu waay defee rek boo jëfee bul xeeb la nga jël bu dee kilo suukar la ñaar fukki dërëm la bu dee kilo kon jaaxal la bu dee conteeru café la yaa xam saaku ciment la yaa xam tonneau fer la noo ko mënee rek soo ko indee si bi dana dox ci liggéey bi dana bëgg lépp danañ ko doxal comme ça borom ñu ngi koy ñaan mu dimbali ba li sëñ bëgg na mën ko bëgg na dimbali rek tax mu indi fii dimbali nag mooy defuma ko rek su defee li mu bëgg suñu borom def sama bëgg comme noonu ñaan sama borom dimbali ba li mu bëgg noonu ñaan sama borom adduna ne mu defi jàmm defi aw yiw defi ay xéewal ak wér ak mucc ak gërëm yi di gàññi na yoo ma xëy ñëpp te seen defal yooyu mi wax ji wax ñooy yéen tey jëwri ji yàlla na nga fi yàgg xam naa li sëriñ bi wax rek nga yéene ñëpp te Cheikh Ibrahima wane na ñu koy defee wax da awa ay jëla si bi xidmati wa ablahum maaraamoo te loolu ci ngeen mu del wax de awaay ja wax de awaay ja la ma istabil basrol xidmati kon yéen ñi jiite mbir mi di sëriñ Falilou ak Cheikh Moussa Fall ak jëwriñ yi topp Yal nañu fi yàgg te wér lool te nu ko ñoom te lépp lu bëgg yàlla nañu ko man te yàlla na yàlla na ngeen dox suñu digganteeg ngant luy tax a nangu li ngeen digle na ngeen dox ak noonu na ngeen dox dig suñu digganteeg loolee yàlla na ngeen fi te rahmatullahi taala wa sant suñu borom di ci yàlla sant Touba Khadim sant Cheikh di bokki ci ndigalul sëriñ bi ci liggéey bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Khadimu Rasul moo ko joxe joxeel ko sëriñ Touba maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ Cheikh Fall jëm li nga xam ne mooy maam Cheikh Ibrahima Fall ñu liggéey boobu nag kon liggéey la bu sëriñ Touba di liggéey loo Cheikh Ibrahima ñun ñii nag loolu la yàlla suñu borom defal taw yi li sëriñ Touba bëgg Cheikh Ibrahima Fall defal ko defal ko. noonu na yàlla tawféexale ñu fekkee jooju jamono ba noppi tolloog jamono ji am luñ ca mën a def ba noppi ñu jox ñu digal lu ñu war caa def koo xam ne nga sum jumaa jàkkal yee de raw la xel koom yi bërki démb ji raw war ngaa mën a dab sa bopp ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa kon noonu woo taalibe bi ci ndigalul sëriñ bi suñu way yi nga xam ne ñoo fi nekk di teew di xëy si di gont si di fi njëkk ba noppi di fi mujj ak suñu jëwriñ yi nga xam ne mooy seen jëwriñ di sëñ Fallou Fall moom mooy jëwriñu sëriñ Cheikh mu fab liggéey bi jiital ay way juram ba noppi fab liggéey bi teg ci ay loxo noonu ñii di ay taalibe di ay rakk war nañ ci mën a xëy di ci gont di ci jaayante kémtalaay suñu kartam mën ak lu seen bi nee na taalib yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi diggante Mbàkke ak Touba ak li ko jege lépp nan def seen yitte muy doole liggéey bi ñu ci xëyee ko taalib yi nga xam ne dañoo nekk ci àll bi seen i addiyee na te kenn ku nekk la ngay joxe te mu war a jaar ci sa sëriñ jaar fa li war a jëm ci seexib la yëpp ñu jox ko kii nga xam ne moom lañ teg ci bopp muy Sëriñ Fallou Fall loolu daal xam naa moom man ci ay soññi ci ndigalul Serigne Fallou Fall bi sëñ Aliou Fall moo te joxoon na ay kàddu yu soññal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi taxaw ak Serigne Fallou Fall mu sëñ Aliou Fall Mboor euh, ak Serigne Cheikh Goussas euh, tey nag Serigne Cheikh jëmm woote woon woowoon ay rakkam mboolem ñu bokkal maam Cheikh Ibrahima Fall ñu doon laaj ba xam rek Serigne bi ban yëg-yëg nga am ci woote bi nga xam ne Serigne Cheikh jëmm Fall woon na yëpp. waaw jërëjëf yëg-yëg bi nga ci am moom yëg-yëg bu sori la. Mhm. kon. Mhm. Eh, ndax sëñ Cheikh Dieumb dafa def loo xam ni. ma mhm. yàgg bëgg na sama xol. yàgg eh, nëbët. yaakaar naa bari naa ci ay morom. yëpp. Eh, xam naa ko yëg-yëg. boole ñu boolewaat. dajale li ko dalee dalee kër Serigne Mouhamadou Moustapha Fall muy taw Cheikh Ibrahima. Mhm. ba ci kër Serigne euh, Gunda. Mhm. Euh, ñëpp tew nañ fi tey. Mhm. waa kër Mame nañ fi. xam ni ñoo bokk euh, ñoo bokk lépp. waaw am na Cheikh Ibrahima. kenn la. am ñaari Cheikh Ibrahima amul boo fi mën di bokkit nga xam ni Cheikh Ibrahima. moo mooy garab gi mhm. mooy garab gi mooy dàtt bi mhm. ay car lañ mhm. euh, garab nag boo bëggee mu mu naat da ngay suufa dàtt ba boo ko suufatee car yëppay yëppay boo tànnee ay car di ko suufat yaakaar naa du tànk bu euh, dàtt ba naatu tànk naat kon ñëpp loolu la ñu war a euh, gën a xam bu baax soññaat suñu bopp xam ne Cheikh Ibrahima kenn ci dong la boo ci mën di bokk ak noo di bokkee kenn ëppale wu ci morom lenn lu dul ay at. bu mhm. dee ci ëppi at nag. Mhm. doon sa kilifa. bu mhm. dee euh, euh, doon sa kilifa. waaye bokk ci moom ñoo ko bokk. ñoo bokk lépp te ndamul Serigne Cheikh ah, lépp. waaw ah, kon léegi ñëpp jàpp. Euh, lu waay mën ak lu waay mënut. waaw ko ñu taalibe yi. Eh, ba ci kilifa yi. kenn ku ci ne. nga miraas sa bopp def ko ci. ndax sëñ Tuubaa moom euh, ku xam na ni. lu mu sant Cheikh Ibrahima rek mën na ko. waaw ndax lu ku mu sant loo xam ne war yaakaar na ni bët mënu ko. dana la kàttanal ba nga mën ko. waaw kon lépp lu ñu jéem sax lu ëpp la. ci yem daal suñu pësteef moo ñu ca yemal. moo ñu ca moo ñu ca yemal. waaw waaw yi soññee la rek ak mbégte. ak ñaanal Serigne Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool te defal ko wér ak mboolem njabootu yëpp noonu la koy ñaanale magam ju baax bi ji di Serigne Cheikh Jëm Fall moom it suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ak mboolem njabootu Mame Cheikh Ibrahima Fall ñoom moom it di Serigne Hassan moom Maam di xalifa Serigne Sali Fall moom koy ñaanal suñu borom yàggal ko lool te defal ko wér ak mboolem yëpp mu am mbégte nag mu rëy moo xam ne ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal Serigne Touba mu ànd koog magam ji sëriñ Cheikh jëm euh, ak mboolem rakkab yi mu bokkal sëriñ Saliou Fall ñëpp mboolem taalibe yeeg Cheikh yi sëriñ yi kenn desut ànd ak moom ci liggéey bii nga xam ni euh, ñu ngi fi di ko liggéey nga xam ne mboolem itte yi nga xam ne taalibe yeeg ñëpp am nañ ko dañu koo bàyyi lenn itte rek lañ am muy liggéey bii nga xamante ni bi mooy liggéeyal mooy liggéey bi liggéeyal sëriñ Touba bii nga xam ni sëriñ Cheikh jëm mu ngi nekk ci bopp bi ñu fas yéene ànd ak moom liggéey bi sëriñ bi di wax ni mu ngi sant taalibe yi bu baax a baax a baax a baax te leen ñaaral ndax euh, bañ ba mu ko tàmbalee ba léegi waxtu wu nekk mu taal oto bi ñëw gaare fii li muy li muy li muy yaram yi xaw a jagat yëpp it teewut dafa bàyyi lépp gisut wéer di gisul dara fa yéene ñëw fii ci tàngoor weeg poussière bi te xam ne lépp njariñam képp la ak njariñul taalibe yi loolu it mi ngi ciy soññ boppam di ci soññ mboolem taalibe fu waay mën a nekk xam ne dara ñoruñu lu liggéeyal Serigne Touba ak Cheikh ak Serigne Saliou Fall mi nga xam ni moom la fi toog toogaayam boobu yàlla na ko borom saxal di soññ ñëpp ci liggéey boobu ajuma dajal nañ fi lim am solo ci ciment boo xam ne takku na lool boo xam ni kawe na njort ba jébbal nañ ko Serigne Fallou Fall Serigne Mourante bi nga xam ne moom la fi Serigne Cheikh jëmb teg muy muy muy jëwriñ ji moom it mu ànd ci ak mbégte noonu la ko jotlee Serigne Cheikh jëmb kon loolu mi ngi ciy soññi di ci soññi bopp li soññi mboolem taal xam ne liggéeyal Serigne Touba amul fenn fu muy yem kenn ku nekk na nga gën a laxasuwaayal gën a takku gën a am parce que yéen a lépp loo am ñëw boole ko jébbal ko sëriñ bi ñu boo def ko ci liggéey bi ndax moom lañu ñu am àdduna moom la ñu am alaxira moo ñu yokk fii ñu nekk ak fa ñu jëm lool nag ñëpp bàyyi xel mi ngi sant rakk mii nag ndax taxaw nañ ko baax a baax a baax a baax ñoom ñi bokk sëñ Saliou ak taalibe yi ak seex yi sëñ taxaw nañ bu baax a baax a baax amul lenn loo xamante ni bii daal euh, lu lu lu ndigal lenn loo xamante ni bii ñëw na ci ñoom rek tabit ñoom ci ko dama ko bëgg kon nag mi ngi leen di ñaanal bu baax ci barkeb Serigne Saliou Fall suñu borom yàgg leen te wéral leen fajal leen seen aajo zaahir ak baatin liggéey bii ñu nekk daal bu ñu fi jógee yàlla nañ seen borom yokk lépp lu ñu yéene yàlla nañ ko yàlla nañ ko man nañu ko bëggee te ne ànd cee ngërëmal sëriñ mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñi ngi nuyu mboolem nga xam ne ñi ngi jàkkaarloo ak ñun di ñu seetaan ci euh, kanam suñu sang bu tedd bi di suñu maam di suñu baay bu ñu nee di suñu maam di fi Serigne Saliou Fall waaye itam toogee fi ñu koy xoole suñu wayjur yi nga xam ni ñoo fi nekkoon doon liggéey Serigne Saliou ak rakkam yi nga xam ni sëñ Modou Anta mi ngi nii moom suñu bàyyi Serigne Abdou Serigne Bachirou mi ngi nii moom suñu bàyyi Serigne Assane Awa jaxate ak euh, seex yi nga xam ni lépp lu Serigne Saliou Fall mas a taxawal rek ñoom ñoo nekk ci gannaawam sëñ Modou Fall a ngi nii euh, teewal fi njabootu maam Codé Fall gépp Serigne Cheikh Niang mi ngi nii nekkal fi njabootu sëñ Taïba Niang gépp kon ñooñu buñ fi teewee rek mel na ni mbooleem kàngam yi àndoon ak maam Saliou génn ci jotaay bi Euh, kon ñi ngi euh, wax alhamdulilahi rabbil alamin ci liggéey bi nga xam ni Cheikhuna Cheikh Ahmad Bamba da koo jox sunu maam Cheikh Ibra Fall muy Serigne Muntaxa teg ko ci loxo Serigne Cheikh jëmb mi nga xam ni moo fi suñu maam Cheikh Ibra mate ko sëkk ñi ngi leen di ñaanal ñoom ñaar ñooyu ñëpp nag suñu borom dëgëral leen te leen ba liggéey bi nga xam ni mi ngi seeni loxo ñu mën ko yóbbu foo xam ne mooy fan ko bëgge di ñaan tam jëmale ci suñu sang bii toog ak mucc ci moom ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la bokkal kër gi yëpp rek ak yàgg fi ba liggéey bi kawe lii nag mooy li nga xam ni moom la ñu miin ci yoonu murit ndax eh, yoon yi moom xitma la ñu wax sunu maam Cheikh Ibra bi mu ñëwee fekk Serigne Touba mu nekk ci daaraam joojee nga xam ne liggéey bu kawe la woon boo xam ne mi ngi ko jële woon ci way juróom moom Mamour Anta Sali mbooloo mi bari woon na lool waaye nag maam Cheikh Rafal bi mu ñëwee daf ko wax ni ko nag jaam ñii a topp maanaam wan leen yoon mi nga xam ne moo gën a gaaw ndax yoon te Serigne Touba daana toppal nit àlluwa ba mu yàgg mu ne ko lii day lu la jàng téere bi yàlla bi ba man koo bind an saxril xay bi waaye nag am na lu ko gën a màgg suñ ko nee loola lu ma mën a yoon wa nit di jaar boobu xalima ak suñ borom ngay bind ngay dégg kiic kiic ja ndeke booba loola mi ngi junj liggéeyam bi mu war a ànd ak ku tedd ki sunu maam Cheikh Ibra Fall ba mu ñëwee moom nee ñu bu masaan di liggéey ba fajar buy yeete jàng danaan ko baal doomi jàmbur yii ngay jàngaloo te woon leen yoon wi gën a gaaw ah, bis nag la ko ko wax mu aalu wëlbatiku ñu daje songoo bañ a roofaloo téyante ab diir ci la ko tedd kat jël satala gi mu yoroon sotti seen diggante ndox mi ñu teexale ko ba mu xëyee nag ca la woote wooteem bu rëy ba muy rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihumoo bi darsi fa xat kon loolu mooy li nga xam ne booba moom la doon junj fekkoon na nag maam Cheikh Ibra Fall moom loolu mu xamoon ko bu yàgg ci liggéey bi stade bi nga xam ne maire bi moo ko jox sëñ Muntaxa mu jox ko sëñ Seex jëmu ne ko dañ dana bëgg ñu def ko kër sëñ Tuubaa ak daara jëni jàll alxuraan ak jàkk kon nag maa ngi ci seen bépp taalibe ku ñëwoon dama ñëw na nga ñëw ku ñëw tam maa nga naa nga daal di waaj te ñu ni fi sa yëpp ndax liggéey bi liggéey xaalis la ak doole ndax mbooloo mi bëri na lool gis mu ne ñu ngi yenn ci tabax yi yenn suuf yi yenn rek di xeer xeen waaye ñi nga xam ne danoo ne ci liggéey ci àll bi di liggéey tam kenn ko ràññee ba gis liggéey wala nga yónnee sa jëf mu ñëw ci liggéey bi kon maa ngi soñ ñëpp wasalaam. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. sëriñ mi ngi leen di siyaar bu baax a baax baax a baax. di jiite siyaar bi Cheikh Modou Mountakha Mbacké xalifa général a lu murit di ñaan suñu boroom yàggal ko fi lool te wéral ay cëram mën naa yi muy liggéey Seex Xaadim tool islam yi suñu borom def ci ko def ci lu koy jortam noonu lañ ko ñaanale Serigne Cheikh Jëm Fall xalifa général de Baye Fall suñu lool te wéral ay cëram lu ñu fas yéene liggéeyal maam suñu ko def ci lu koy njortam ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall yi nga xam ne yëpp ñoo ngi daje ci liggéey bi eh, di ziar Serigne Baax Cheikh Mouhamed Fall Fall ibn Cheikh Sakko ñu ñaan suñu borom yàggal ko ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp di ziar Serigne nga xam ne mi serigne ali fall tay jël ci vidéo bi di rafetlu liggéey bi nga xam ni serigne bi mi ngi rafetlu liggéey bi nga xam ni mom la njabootu mam cheikh khaym fal gep di taxawé fi ci mbacké bol di keur cheikhul khadim gi nga xam ni cheikh mamadou muntaxa moom moo ko taxawal waye mu taxawal ko ci barab bo xam barab bu fasantikoo la ci yoonu mourid barab bu am solo la ci yoonu mourid fi ñu tok tay ji fi la cheikhul khadim gané won jamono waaye mu doonoon barab boo xam ne dafa meloon ni barab bu fowukaay la woon ci ci kër ni ñu ko war a xëy war a ci saayir muy barab bu terrain bi nga xam ne fi lañ doon footballé waaye sëriñ bi nag ñaanoon ko laaj ko ñu jox ko ko mu def ko kër Seexul Xaddim waaye bi mu ko defee kër Seexul Xaddim mu def kër kërug lislaam ndax daaral alxuraan la njëkk a wax nañ ko fi taxawal ak uh, jàkk joo xam ne day am benn sooroor boo xam ne ni dañ koy kennalee Seexul Xaddim kon mu mel ni kennal googu muy wax kennal Seexul Xaddim dana Seexul dafa mel ci boromam noo xam ne kenn melu ko ci boroomam kon kenn la ci boroomam koo xam ne nii kenn melu ko ci moom waaye mu wax ne ne kër gi yàllu na Cheikh Ibra liggéey ko kon looloo tax maanaam mu jox ko njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall kër Cheikhul Khadim ci Mbàkke Bawol waaye nee na yelloo na maanaam Cheikh Ibra liggéeyal Cheikhul Khadim kër gu mel noonu moo tax mu jox ko njabootu Cheikh Ibra yëpp nag njabootu Cheikh Ibra yëpp nag booloo doon benn takkandoo àndandoo nekkandoo di yëkkateendoo di tegandoo di dund ci waxta si moo bi Abdoulaye Jami wala tafaraqo nga xam ne ne suñ borom mën a jàpp lañ sama boobu ngir te bañ a mu mel ni ñoom ñëpp ay mbokk lañ bennoo e, inamal moom na exwatu fa aslihu bayna exwaykum loolu la sëriñ bi loolu rek lay doxal te loolu rek la nekke ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp ndax noonu la ànd ak i magam waaye noonu la ànd ak i rakkam waaye noonu la ànd ak i doomam waaye noon la ànd ak i jarbaatam yëpp waaye noonu la àndee ak mboolem taalibe Cheikh Ibrahima yëpp nag nga xam ne moom daal Cheikh rek ko ñor comme li nga sëñ Fallou wax léegi rek mm. nga xam ne njabootuk Cheikh Ibra gi ni ñu booloo doon benn loolu moo ñor sëriñ fallu ci loolu rek lay dox guddi ak bëccëg kon daal lii daal askan wi yëpp ñu ngi koy rafetlu waaye yoonu murid yëpp ñu ngi koy rafetlu waaye wax nañ ne Cheikh waxoon na ne baatinab yoonu muri de maa ngi ko denc gébb Fall kon baatinab yoonu murid tey jii feeñ na fii ndax mbooleem njabootuk Cheikh Ibra gi sëti Cheikh Ibra yëpp ñu ngi fi li ko tàmbali si sëñ Moudou Moussa ba eh, ci ba ci ba ci ba ci maam saliou fall mi nga xam ni mom moy caatum cheikh cheikh ibra ñom ñëpp dajé nañ fi doon wenn say takkando andando fasiyene yéene ke cheikh khadim bam egg ñu jébb and ak serigne cheikh jëmb seen mag ju baax ji jébbal ko cheikhul khadim muy cheikh modou muntaha yalla na yalla egg lepp serigne ñeen neen mu ngi siyaar ñëpp nag di balu ak ñëpp asalaamaaleykum rahmatullahi taala wa barakatu in bokk julli in bokk talibi seen mu comme talibé ñu gën ko xam ci Modou Mbène Badiane ma leen di nuyu kenn ku ci ne ci turam ak santam ci turu sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Fall mbenn ak sëñ Fallou Fall mi nga xam ne mooy jëwriñam mu gën koo xam sëñ Fallou Mbar moom sëñ Mbacke Fall moom sëñ Modou mbenn ci turam nag la ñuy waxee eh, di sant sëñ Alaaji bu baax nag sëñ Fallou moom sëñ Aliou Mor nga xam ne mooy taxawu lu mel nii ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax eh, laaj bi nag danañ ci mën a tontu lool eh, mooy liggéey bi ak soññe bi. jabar suñu mut Fall mbenn képp ñëw keroog ba suñ seex jëmm wootee ci turu kër Cheikh Fall gépp nañ ñëw ci liggéey bi boobee lañ ñëw barab bii ngeen nekk mooy nag mooy dalab suñu waak sëñ Mourou Mbène nga xam ne njabootam a ngi nii di ñëw nekk noonu di moom sëñ Mbacke Mourou Mbène sëñ Khalifa Fall moom sëñ Ablaye Mafane sëñ Mortala Fall moom sëñ Cheikh ak njaboot yëpp ñoo ngi ñëw ak taalib yi ak seex si ak soppe yi Euh, ba tax na daal noo ngi soññi suñ bopp di soñ ñëpp ci liggéey bi ndax suñ seex jëm moom daa matal dafa wax ne njabootu serafal gépp la woo amul serafal gépp la woo ñi bàyyi ñi wax ne daal képp koo xam ci serafal ngay soyee moom nga yaakaar tey ëllëg nee na nga dagg sa yitte ñëw ci liggéey bii sëñ Tuubaa woote bu sëñ Muntaxaa mu nga xam moo fi nekk Seex Xaadim ñoom ñaan yàlla sun borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak ak mboolem njabootu Seex Xaadim yëpp kazalika ak sëñ Seex jëmm suñu borom yàggal ko fi te mu ànd ak wér ak rakkam ji nga xamante ni e, mooy léppam di sëñ Amdi Fall moom sëñ Mour Fall Mbenda ak mboole njabootu maam Cheikh Fall yëpp noo ngi soññi suñu bopp soñu taalib yëpp di leen ne liggéey bi moom liggéeyub Sëriñ Tuubaa la nag njabootu Cheikh tax ñu wax kon fu waay nekk tey sooyee kër sëñ Mourou Mbenda nga xam sa yaakaar yëpp sëñ Mourou Mbenda Fall la mu maam Cheikh Fall sëñ baa ngi lay woo ci sëñ Fallou Fall mi nga xamante ni mooy loxo ndeyjooram mooy jëwriñam waaw dal baa ngi nii nag saa su ne nañuy xëyee départ dem ca liggéey ba bu sëñ bi joxe ndigal bu ngoonee ñu wàcc jaarat fi naan kafe delluwaat ci tii ba ëllëg loolu daal mooy soññee bi sëñ Mourou Mbène nag maanaam mos sa des ginnaaw ndax doomi Serapha te mën nañu wax na sax juróom-ñaar mag nañ ko mu juróom-ñetteel leen te ku na xam ne. Euh, bàkk bi ñu ko daan bàkk mooy muuri yaay mbenn jàmbaari lislaam kon man gu manoon ci yoon toolu toolu lislaam bi fu ay kilifaam wootee kenn du ko ca kon noonee nag la waa këram taxawee muy waa kë waa muy ak njabootam ay doomam ak ay sëtam ay taalibeem kon nag fu waay toll fu waay nekk di ñu dégg nga xam ne daal sëñ am di Fall Mourou Mbène nee na lu waay nekk na ko baax ñëw ci liggéey bii ñu liggéey sëñ Tuubaa ndax murit nag ndigal doo mën a jëfe nag waaw ku di maçon am nga fi wàll ku menuisier coffreur am na fi wàll ba ci sax euh, métallique wala ba sax ferrailleur képp koo xam ba ci koo xam mën a am nga kàttu euh, nag sa indi sa alal indil ko sëñ bi sax mate na kon sëñ daal mi ngi ñëpp kon nag noo ngi leen di jégalu di leen balu àq di leen wax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ok mbokk yi gis ngeen kon liggéey baa ngi noonu li ko tax a jóg mooy daara ak jàkk joo xamante ni bii nga xam ne mooy sëñ Cheikh Jëmb su ko defee ñu xam ne kon loolu liggéey bi bàyyi faa yëpp fas yéene na feek liggéey bi yeggul bañ jébbale caabi ji biñ fi jógee loolu mooy ndigal li nga xam ni Serigne Cheikh Jëmm joxe na ko incha allah xam naa ñàkkul dañ leen ko toppal ba kër ñuy jébbale caabi ji lépp loo xam ne ruusane fi rek incha allah